ci jamono bi nga xamee ni audience bu ubbeeku na foofee ca palais de justice bu ndakaaru ñu mën a nemmee ko ab saxaar ci boor bi bi ñu yegsee ca bërëb boobee lañu gis moo di ni ay pneu lañ fa daal di taal ña ko def fa di ay manifestant ci diir ay waxtu jàmbaarloo yi daal dina dox diggante waaye takku der yi ak ay ndaw yu ràññee seen bopp ci njiital Pastef di Ousmane Sonko. doo xam ne lépp li ñuy teg nii pour faagaagal Ousmane Sonko moo tax. présidentielle 2024 moo tax mais est leen may dara. marquage à la kilo la. daanaka bitig yëpp daal di tëj askan wi am jafe-jafe ngir doxi seeni soxla ci jàmbaarloo yi ñetti bus yu Dakar dem dikk daal dinañ leen ba noppi yóbbu seeni pièces ak i feeraay beneen woto mécanicien bi daal di ko moom moom itam daal dina tàkk. oto bi daal bûche bi lañ daal ñu woo ma téléphone kër ga naru ma woon xëy tay sax ñu ne ma caabi ji lañ gisul quoi dafa sécurité mais ñëw naa bu ñu daale caabi ji mais fekk naa oto bi jeex quoi. mais manifestation yi ñi ñi ñi ciy yàqule seen yoon newu ci ay liggéeykat lañ yàqal nañ leen léegi ñu ngi nii toog liggéey moo ñu intéressé. daanaka ci biis bi yëpp manifesté yi daal dina wëy ci boorub ndakaaru biile ñu nemmeeku ci yàqute yu fasantikoo ak i manifestant yu ci jëlee ay gaañu gaañu